waa Fatou looy toog nii di mel ne ku jaaxle awa man daal damaa jaaxle ak màggal gi di ñëw aw ma fi ma tëral sama gan jaaxle ngir ñàkk foo tëral say gan boutique waa kër Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ne ñoo ñu andil ay meuble ay meuble yu baax laa lay wax meuble waaw waaw ay meuble importé yu mucc ay naw leen boutique waa kër Serigne Fallou Mbacké rek ñoo ma ci doy yii lal yu am maanaa am rafet ay lal laa leen wax de lal importé yu dëgër ci qualité bu wóor waaye itam ci njëg yu xéewale ana ngi doon wax lali importé yi dëgëruñ ah déedéet loolu dama koy weddi ndax boutique waa kër Serigne fàllu Mbacké lalu importé yu dëgër lañu leen indil waaye itam yu ànd ak qualité waa kër Serigne Fallou yemuñu foofu lépp lu jëm ci meuble décoration yoo xamante ni da ngeen koy soxla woo ci seen biir kër waa kër Serigne Fallou Mbacké dañ ciy ànd ak yéen ay meuble de ay fauteuil ay meublé de bureau lépp waa kër Serigne Fallou Mbacké ne bàyyi leen kook man maa leen ciy doy ngir màggal Touba 18 safar gi ñu jublu daw leen gaaw ca waa kër Serigne Fallou Mbacké ngir ngeen changé waat seen ay salon defar ko na mu gën a mucc ayib ba gan ñi bu ñu màggal see seen xol di bég ah lii gën a xéewale waa ku si bëgg nooy def boutique waa kër Serigne Fallou Mbacke ñu ngi ci Touba Ndamatou ci corniche Serigne Modou bu Dieng wala ngeen gaaw woo ñu gaaw ci 77 678 70 70 77 678 70 70 ngeen laajte Afe Diaw ak boutique waa kër Serigne Fallou Mbacke jaaxle jeex na ci seen wàllu meuble fii ci dëkk bu sell bi ci Touba ak ci réew bu Sénégal